colonel ci am ñu ngi leen nii bu baax a baax a baax Makhtar. maa ngi leen di sant yéen tamit euh, waa presse bi di leen gërëm di leen wax ne bienvenue à la conférence du président Baba di président du mouvement Reçu Reçu révolution de la culture sénégalaise. naka nga gisee initiative bi nga xamante ne tey Baba Amdi woote na ko fii. ah mais initiative bu baax la rek initiative la boo xam ne ñun depuis quelque temps ñu ngi ciy liggéey ah am na affaire boo xam nag moom duma ma ci du ci sori. ndax moom il est là pour ça bu teewee incha allah dina waxtaan a yéen ci li nga xam ni moom mooy reçu waaw loolu moom defe naa moom mooy gëna a rafet daal ñu bàyyi rek président wax ci moom mais loo xam ni la je la là avec euh, quelques membres Mairie Dieng yaa Lalla Diop yaa aussi Rokhaya Ndiaye nga xam ne ñun ñëpp on est avec Baba Amdi nous faisons partie de la crème de reçu di liggéey ak moom pas plus tard que semaine bi rek samedi dimanche on était en séminaire à pour gën a waxtaan ci euh, lan mooy reçu li ma mën a wax ci reçu rek moom mooy mutuelle d'entraide la entre les acteurs culturels loo xam ni la daaw ñu ko faral di gis ndax euh, ay association yàgg na di am mais bii moom c'est pas parce que ci la bokk moo tax may wax pour jéem a mais honnêtement lu doy waar la daal loo xam ne la nous invitons tout le monde à venir adhérer au mouvement reçu ndax am na njëriñ te boo leen dégloo le président Baba Andi fii si incha allah ci kanam di ngeen xam ni affaire la boo xam ni tous les acteurs culturels dinañ ci gis seen bopp incha allah. macha allah loolu di ay kàddu yu am solo waaye nag ma bëgg a waxtaan ak yow nag en tant que Saër Thiam. <laughs> waaw man moo non vrai moom mooy Pape Demba Thioune laa tudd mais dans le film c'est vrai que je suis le colonel Saër Thiam je tiens tout d'abord à m'excuser par rapport aux femmes ndax maa ngi ciy joué boo xam ni un colonel pervers di jégalu soxna yi nag bu baax di leen xamal ni Pape Thioune moom am na yoo xam du ko def mais la colonel Sayer Thiam en tant que tel il est là juste pour dévoiler parce que c'est des trucs yoo xam ça se passe c'est des mœurs yuy xaw ci àdduna ñun on est des artistes et on est obligé de se mettre dans la peau pour dévoiler certaines choses yoo xam day xew ci àdduna donc voilà le colonel des fois il montre d'autres faces parce que ñu dinañu jouer des fois yeneen série comme par exemple actuellement maa ngi nekk ci benn série bu ñuy wax Mariama et là j'incarne le rôle d'un surveillant général totalement différent du du colonel donc voilà c'est ça nous sommes des artistes et on est prêts à se mettre dans la peau de de je alors disons que ni je peux dire que c'est des automatismes lay doon daal je viens on me donne des scénarios c'est vrai que je me permets pas de faire certaines choses parce que aussi nit laa boo xam ne dama am ñu ma bokkal boo nekkee ci aduna am na yenn yoo xam ne da koy ragal a def yoo xam tam da nga koy jomm def mais je crois que rôle yi may joué actuellement nii du rôle boo xam ne dafa doy waar c'est des trucs qui se passent dans la vie et on doit les dévoiler parce que c'est pas man ma nekk benn ci mi nga xam ne maa koy def mais c'est juste de la fiction il faut que les gens le comprennent mais oui on doit arrêter ça les femmes ne méritent pas ça ce sont nos femmes ce sont nos mamans ce sont ñooy suñuy amoon rek xool leen comment elles sont toutes belles xam nga il va falloir qu'on les caresse xam nga c'est voilà c'est tout man. problème yaak Anna lan la règlement de compte bi nu mu demee noonu. <laughs> Anna moom. voilà démb rek am na ko ma ci doon laaj na ma mais yow lan la la aada def ma ne ko dara c' juste que ni c' est une belle femme doon liggéey ak man par exemple juste ce qui se passe euh, ci mërsi bi bon mu doon ku ma neex may jéem a ut nu ma jéem a rek léegi moom mu bañ je m'excuse du terme ma def benn acte boo xam ne c'est jigéen ñëpp moom la ñu bañ nga tàpp leen ma def ko nag elle s'est mu gis boppam te moo doon sama secrétaire ci armée bi parce que on était dans les renseignements généraux mu mer génn a dem c'est ce qui a valu après moom sax mu créer brigade bi donc man bokk naa ci li ko poussé pour mu créer brigade bi bon léegi nag créé na brigade bi mi ngi may wër taman yamamoo ci moom rek parce man maa ci soos yëpp. bu Sayar Thiam lu ko ci mën a fekk. moom ku ma laal jot sama jikko waaw parce que c'est la seule fille que moom laa am quoi instant yi nii j'ai plus amatuma kenn ci àdduna doy na waar nag mais nañu xam ne moom mooy sama doom il faut dafa am benn scénario boo a waxtaan ak moom ne ko bon tout da nga war a régler xam nga il faut que tu sois une femme régler yi mais dafa ma ne ma mais papa ça va toi yow yaa ngi nii tu fais du n'importe quoi internet bi ñu wane la ngay kii yooyu genre yooyu donc tu vois que ni par exemple loolu c'est important man ma koy jéem a ne dans l'ordre moom mu xamal ma ne ma yow déjà yow nekkoo ci yoon bi ba man ma mer bëgg ko mbéj mais après ma retenir wu xam ni sama doom la mënuma def yenn yi mais nag du yoon jigéen ñi moom on doit le caresser quoi on doit pas vraiment les maltraiter quoi gars yi je vous appelle vers ça non ñun on ne vit que pour elle ñun li ñuy ñafe am xaalis on se fait beau oto yu rafet yooyu yëpp c'est pour les femmes xam nga loolu ñuy def ñoom aussi seen xeetu greffage yeeg yooyu ñuy def nii di jaay kii yëpp pour ñun la de gars yi voilà. non ñun la. bon voilà léegi damay wax ni par exemple jour bi may euh, am na benn scénario boo xam ni dama xooj xale bu jigéen bi ci lal bi mhm. bon j'étais avec ma maman parce que je vis avec ma maman. ma seetaan série bi ba pare bi ma wàccee ci suuf dama wàcc rek jàkkaarloog sama yaay rek mu ne ma yow yaa bon yow ko soxal dafa da saaga dafa ma saaga te xam na ni melu ma noonu mais bi mu seetaanee film bi donc saaga na ma par rapport ak ce que j'ai ma rey na ko mais maman yow man lii man mu ne ma xoo xam génn sama néeg ma génn ne mais attends c'est quoi ça ma xam ni bi ma dugaatee mu ne ma mais man man man pour man sax dëggantaan la ma ne ko mais du dëggantaan maman yii du ma ko def xale yu jigéen ñi xale yu jigéen <laughs> dama leen di kii. ñu ñu tëjee benn point rek nga xamante ni fan yi xew na Sénégal mu métti sénégalais loolu muy jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi leen di rey di dund ak ñoom lu métti loolu tamit ban message nga si mën yëkkati. dañu war a arrêté dañu war a arrêté franchement violence moom baaxul quoi muy que ça soit ñu rey soxna yi que ñu rey góor ñi rey moom yàlla rek moo ko moom ñun moomu ñu rey léegi nag beneen sens bi mooy li may waxaat rek ci jigéen ñi les filles elles méritent autre bi leen di colonel Sayer Thiam di def non mérité wuñ ko. kontaan nañu bu baax merci beaucoup les gars aussi merci à